Thank you. Alioune Tine mooy sunu euh, gan Chérif. waaw Alioune ñu nuyu ko dalal ko moom it rafetlu àndam ak télévision Futurs Médias moom moo jiite kon euh, mooy fondateur Africa Jom Center ku ne xam na ko nag ci réew mi. Mhm. nekk acteur bu mag moom euh, professeur Alioune Tine am mhm. ñun amul chance mu jàngal ñu ci sestima jàngal na Souleymane. waaw <laughs> jàngal bu am solo de. Ah. macha <laughs> daana mayoon note yu baax. <laughs> waaw mais surtout gis nga moom. Euh, mu qui ñu une euh, euh, matière boo c'est très important moom linguiste la mhm. spécialité am sémiotique mhm. ah, ah. donc nous ñu daf ñu daf ñu teel mhm. identifier réfléchir qui sens aller au-delà de l'apparence comme ça jéem me xam lu nëbbu ci gannaaw la signification euh, ba pare jàngal ñu une euh, expression euh, française Euh, écrite orale jàngal ñu am solo ci métier bi ñuy pratiquer nii mm-hmm. te ñu ko koy santé bu baax a baax comme ni ñu santé suñu maître yi nga xam ne ñoo jàngal depuis bi ñu nekk ah, euh, jàngal gone yi jëlaat crédit fi mujjee xam ne li tax nga ñëw fi sax mooy mbiram affaire troisième mandat parce que démb am na lu xew Côte d'Ivoire Guinée aussi am na lu xew mandat mm-hmm. bëgg nañ koo jàngal mais mbas mi aussi muy virus bu njëkk bi virus troisième mandat dañu ko wax mais ñu wax ci virus bi yéen gis na ni taxawaay bi nga xam xamante ne amoon ngeen ko ci ci société civile fii ci Sénégal mm. mais état d'urgence bi am na lu président junj muy état d'urgence localisé la ko tuddee bu mag ba moom bañ ko fi defee yéen ne woon ngeen ñu dindi ko mm-hmm. jàpp ngeen ni tolluwaat nañ ñu taral mbir yi fii ci Sénégal mm-hmm. jërëjëf man xam nga man damay liggéey ak ñu ñuy wax révocat <laughs> ñu ne ay xale yu xarañ mm-hmm. bis bu ne ñu ngi ci biir euh, terrain bi euh, ñoom Abdourahmane Sow <laughs> ñoo fa nekk ñoom ma Soda Ndiaye bés bu ne sax mu boole la ak ñoom. war ngeen leen di jox ñuy wax bu baax. parce que ñoom ñi ngi ci ñi ngi ci terrain bi. Euh, li ngay wax ni boo demee tey Allemagne. dama gis ñu bëri génn di manifester ne bëggatuñ sol masque. c'est-à-dire mooy condition psychologique yi ngay wax. en France ñu jékki-jékki def benn espèce su happening boo xam ne. dafa titel ñëpp ba Jacques Attali ni sayee mm. affaire bi dina dem solo ñu mas solo ñu dara def sen ben show musical fecc mel ni dañu dañu ñu ñu firi mm-hmm. donc il, me semble que y a beaucoup de choses ci li ngay wax lo xamni amna man damay dox bu may dox xalé yi duma ci gis kenn ku sol masque fi damay jóge sama cœur boru Mamel damay dox ba masque de la divinité bu mm. bés bi la ma taxaw taxaw dal di len def prêche il me semble que c'est important gis y mesure une contrainte mais il faut que adhésion c'est-à-dire que il faut que nit de façon systématique mu les ne bu protéger d'abord protéger les parce que ñi sommes wax nous yi muy ñun. sommes les papa Nous <laughs> sommes yaay bu nga dem jël côté wu deuguer nga bu la dalee du metti mais boo ko ci biir mën nga fat sa mag mag mag kër gi yépp mhm. té mag ñi ñi ngi dem donc il faut nga né man masque bi suma ko solé du pour man rek damay protéger sama war kër c'est extrêmement important buma ma sama loxo damay protéger sama bop damay protéger sama war kër mhm. té it li nga wax ci métier it gis na ko mais mhm. <laughs> lé damay taxaw fekk la ñuy liggéey ma mais yeen da du leen sol masque

fépp foo xamné amna ño xamné amna leadership rek il me semble que c'est important ñu jox len ko de trois moy il faut que les masques soient disponibles <laughs> c'est pas évident que foo xam ne mën nga fa am masque rek mu djégal nga sol ko dem lolu bu fekkee ne boole nga ko ak contrainte peut-être que mën na am mais aussi <laughs> do bayyi da ngay di continuer di continuer di wax parce que affaire bi dafa ñëw dafa ñewat bu baax France bo démé lire <laughs> comment dirais-je kii noonu la boo demee États-Unis mi ngi yégat mbass mi dafa ne lo xam xamuñ ko. té benn moyen lañu am pour fagaru moy sol sa masque. Mm. loolu rek mom moo lay aar. état d'urgence localisé amul ah. ma état d'urgence localisé biñu njiitu rew mi jundju état d'urgence bi mu bi mu junj bi mu bi mu jundju mu junj je pense que psychologiquement sax baxna na des fois aussi nga frapper nit ñi ñu xamné mm-hmm. que dañu né en danger parce que tay situation les jeunes médecins là souvent de nous de ma les spécialistes mais de mes salles de réanimation des fois <laughs> du en place du am ay c'est mm. ça veut que nous sommes dans un système sanitaire nous xam faire attention nous ci suñu nous ak suñu ay indiscipline irresponsabilité de casser ce système de santé. Mm. donc il faut aussi nous ci suñu système de nga xam dañ déjà mu fragile vulnérable.

mesure ñëwaat na day nekk gàllankoor ci koom oh, très bien donc c'est important. léegi nag ñu wax ci benen virus troisième mandat j'ai bien aimé le titre du quotidien Alpha Condé ak Ouattara testé positif <laughs> c'est le journal le quotidien bon ils sont forts ci noonu nag lan bëggoon ñëwaat quand même parce que démb mom def na discours à la nation bi ni waajal sen 60 euh, ans d'indépendance né day nekk candidat ci élection yi nga ci fin octobre 2020 bi lay am. joxe na exemple daal di sax am prétexte au la de situation ba mbas mi nee na daal ni mu koy gérer ak yooyu ak fii bu demee xëy na kaw mën naa am ak yu ne bokk na en tout cas ci argument yi mu teg ci table ji ne moom moo tax kon mu sampan dënam te ci weeru mars le 6 précisément ne woon na du sampan dënam ba Amadou Gon Coulibaly ma fa nekkoon premier ministre dëddu moom la sampoon ndëndam pour mu représenter LHDP est-ce que am nga mbetteel ci Ouattara li ñuy wax pouvoir dafa yàgg du tey li ñu amoon yaakaar mooy ne nga xam ne nañu pouvoir parce que depuis les années 90 watara <laughs> sonn na trop watara ñëw na fii temps ñun les années 99 on rappelle le 4 décembre nous avons manifesté manifester ci bobu sen sen tout sen ambassadeur bi sax tout Alassane je pense que trois semaines lañ ci coup d'état ci waxu dafa c'est la révolution des œillets le <laughs> bon euh, gis nañ def élection 2000 c'était dans la rue si le bac ni dem len dans la rue bi Gbagbo ñëw ñi ne dina <laughs> bac Gbagbo lu ko fa guerre té en réalité ce sont les mêmes signes que génne Côte d'Ivoire man dama dama dama yag euh, di travailler sur la Côte d'Ivoire parce que tant Houphouët-Boigny bi nga xamee ñi ñu ngi doon jàpp ñoom bu ñu daan dem commission africaine boobu mu ngi dogu <laughs> dans les années 91 92.

ci lañ ubbi ay ay ay c'était son directeur de cabinet. donc il bu gis nga Soro mënul mm-hmm. en prison mm-hmm. mm-hmm. dans des conditions il y côté parlementaire. c'est vrai que dañ faible en matière de démocratie dañ en matière de droits de l'homme dañ en matière de gouvernance parce que fi nga ni des euh, na fa né Côte d'Ivoire dafa neex dafa am alal mhm. en réalité réew yi am alal ci biir Afrique. Mhm. nga xamné dara waru fonné ñoy mhm. bu ñewé dem dajalé li nga assemblée nationale dajalé congrès c'est le mois de mars dernier ni mom d'autres ko def C'est lolu boko wax gis nga wax boko Té parce que da politique image politique ci bopam. Mom la ñun de sens la politique beaucoup nga mais écoute nous, bu découragé gamatuñ politique ci leneen lañuy né ne loolu moo ñuy indil <laughs> jihadisme yi. madame yomba justement, justement situation bi ban impact le mën andi ci Afrique de l'Ouest bi nga xamee ne gis nañ né actuellement euh, dafa instable vraiment. mais attends Afrique de l'Ouest tey <laughs> man dama titel Afrique de l'Ouest dafa feebar mm. ñun ñoo nekkoon zone bo xamné presque dafa nekk zone bo xamné amna am rare moment ci ngay gis mu doon am kii bi ñu na ba nga xam ne nañ bi nga Niger Libéria Sierra Leone yoy yëpp xawoon na dem ñu nekkoon zone bo xam dafa stable mu ne zone bo xam amon na leadership amon na période bo xam bu dara amé rek leader yi bu ñu ñëwee di jël benn décision Union africaine jël ko da ngay jékki-jékki ñëw au niveau du conseil de sécurité ñu top mm-hmm. mais légui leadership bi du Afrique rek <laughs> aussi le leadership mondial tey dafa faible boo demee États-Unis nga leadership bi da ngay France ci insister problème politique ci mhm. si si si bi le président ngi euh, Sénégal itam président pour un troisième mandat euh, ce n'est ni un oui ni un non euh, loolu aussi gagné que avons noir ci fan waaw euh, man am na loo xam ne comprendre naa ko ci. muy la. Euh, tey ak ambition yi nga xam ne bari na boo boo ne boo summee ko ba mu jeex mën na am yow ci sa bopp pour nga am benn gouvernement bu stable di liggéey day xaw a doy waar mais il faut nga am pas-pas ak kii boo xam ne da nga naan écoute man. li ma bëgg li ma desal lii mooy sama ay objectif lii ak lii ak lii bëgg naa ko atteindre bu bala may bala may bala may def nga ànd ci ak ñi nga xam ne am pass pass ànd ak yow képp koo xam ne dafay ñëw naan dafa bëgg kii nga ne ko demal nga préparé ji sa campagne bokk doo bokk sama gouvernement mu dem préparé ci campagne <laughs> wala mu dem defi leneen képp koo xam ne da nga nekk man dañuy liggéey dañ nekk di liggéey mm-hmm. waaw mais nag euh, xam nga eh, nguur ni nga xamee ni dañ ko représenté tey ak doole bi nga xam ne dañ ko jox président de la république mu nekk doole boo xam ne sans limite. ak wut bi nga koy xam ne dañ koy wutee c'est-à-dire que foog nga am xaalis mhm. ba pare dugal ko ci nit ñi parce que tey bu fekkee ne yow même am nga ay idées yu baax mhm. am nga ay objectifs yu baax même su fekkee ne sax ko wér nga <laughs> tey mhm. du loolu tax loolu taxu la fanu bu gënewul xaalis doo fanu te loolu yëpp nag

waaw <laughs> maintenant su fekkee ne ñun xalaatatuñu nan la def xalaatatuñu pouvoir parce que pouvoir ci boppam mooy mooy corrompre. Mm-hmm. boo jëlee Guinée mën naa la defal depuis Sékou mm-hmm. nga jël Lansana Conté nga jël Dadis tey ñu ngi ak Alpha Condé sooy xool leadership bi ak li ñuy def toujours day indi ay ay problème la ñuy nekk ci ay fitna. ci mm-hmm. ay xeex. ci ay xuloo ci ay rey. mais li ñu rey Guinée temps yooyu ak léegi. Hmm. mais loolu jar jar na xoolaat. Hmm. te da seet ne bu jëkk ba amoon na ay mécanisme yoo xam ne xawoon nañ am doole ñu bu ñu waxee ñu déglu leen dem ngay dem CEDEAO bokkuñu. nga jël Union africaine nga bokkuñu nga jël Nations uni dafa Chambas di dem <laughs> ak a bëri. Hmm. parce que man dama koy suivre dañuy nekk ci situation yoo xam ne presque dañuy nekk en pilotage automatique ta nous sommes de la réalité nous sommes objectif mm-hmm. mais mais il faut dire que. au mm-hmm. troisième mandat Sénégal mm-hmm. ah oui 2011 vous <laughs> mais réglé c'était réglé. c'était réglé par des élections. faut le dire ah, par le peuple est-ce que l'institution en Afrique dafa faire des tâches d'huile Burkina. Ils ne n'ont pas réglé par les élections ils l'ont réglé autrement hmm. ambassadeur Qatar la hmm. <laughs> Il n'y na ambassadeur les Qatari Arabie Saoudite aussi war faites seet bu fekkee ne dictateurs yu bëgg impuni hmm. il faut que nous aussi ba nga xam di ñu ay di nga xamni ne yi nga xam ne ko am. Mhm. ñu koy ñu koy gën question bu gàtt rek euh, euh, dans dans le prolongement question wu Diao bi. Mhm. Euh, Afrique Afrique de l'Ouest CEDEAO dafa nekkoon modèle année dernière dem naa fi ay ay réunion mhm. organisée par Union africaine le département des ah, affaires politiques des affaires politiques ñom ñoom organiser une réunion NDI c'était sur la limitation des mandats qui mhm. s'est tenue à Niamey avec mhm. Osiwa NDI etc. cetera une déclaration avec Christophe une déclaration mhm. euh, c'était pour appeler les chefs de l'État à respecter la limitation des mandats parce que limitation des mandats mandarga démocratie mandarga démocratie des femmes mandargam élection si le euh, alternance si le bok limitation des mandats si le bok dans le temps et dans le nombre bon mais man réunion yi ma dem yeb cdao lañ doon jël comme modèle ci Taxi, ak ci jëfin bi waye tay dafa melni té te moy sama question est-ce que Afrique de l'Ouest arrièreul parce que tay Afrique australe ngay gis ay exemple ay Malawi ay président bu doon jéem a élection justice jouer rôle am est-ce que amul lu xew lutax Afrique de l'Ouest delu gannaaw y compris xëy euh, sous-entendu bi nga xam ne question Chérif fa la mm-hmm. est-ce que amul une ingénierie bo xamné ne mm-hmm. moom développé wu mm-hmm. en Afrique de l'Ouest ba nga xamné bu ki défé rek ñëpp defandoo non Fatima moo ko doon wax légui légui cest c'est-à-dire euh, Debache au Togo euh, ak ñeneen Sénégal fi des des tailleurs d'ailleurs man bi ma demee réunion yoy dañ ma don togn au Sénégal vous avez des tailleurs de haute couture loolu la ñu Congolais don togné

te it fa yeewoo ñun tibé nañ ci Nigéria tibé nañ ci Nigéria li taxone mu jappalé ki nga xam ne mooy euh, Faure Eyadema parce que dafa bëggone def troisième mandat moom mo nekkoon union président union africaine à l'époque te it daf ci féewale won ak Alpha Oumar Konaré très bien premier kii bi premier chute bi fa la mais bobu tété dina ko mhm. mais dina ñëw da ngeen da ngeen ma top sama rapport parce que